Ansu Sané ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay sant Elisabeth. voilà ma fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal directeur général bu agence nationale pour la reconstruction de la Casamance muy ANRAC bokk tamit ci collectif des cadres républicains bu Ziguinchor gannaaw bañ la nuyoo dalal la ñu wax ci li nga xam ne mooy mbënd mi jamono ji Sénégal gis nañ ne am na ay diwaan yu bëri mbënd mi euh, laal na ko ba tax na tey ji ñoo ngi ŋaññ lii di plan de lutte décennal bi euh, jëm ci mbënd mi yow lan moo ci sa xalaat. tontu si bi bëgg naa d' abord euh, nuyu réew mi FM te tamit bëgg naa profito ci occasion bi pour gërëm la ci sa invitation di feddali sama compassion euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo lorle ci mbënd mi donc di njaal tamit njaboot ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñàkk seeni euh, mbok donc ci mbënd yooyu donc nekk na lu jafe-jafe lu métti métti ndax euh, ren ji donc taw yi nga xam ne euh, nemeeku nañ ko fii ci réew mi nekk na ay taw yu am solo mm. ba nga xamante ne tey diwaan yi bëree bëri bëri bëri donc fii ci Sénégal rawatina fii ci Dakar donc ñu ngi jànkonteel ci jafe-jafe yooyu donc euh, loolu tax na ba véritablement gouvernement bi mu nekk sur le terrain pour jéem a indi ay saafara ci wàllu woowu ñëpp xam nañ ne euh, mbënd bi nekk na loo xamante ne lu yàgg lu ñu yàmb laaj yàgg nemmeeku la si ci si réew loolu tax na ba 2012 président Macky sal falo donc euh, dafa jàpp ne donc euh, war nañ mën a lal benn programme bu am solo boo xamante ne dina mën a tax ba ñu mën a xeex ci mbënd mi muy ñu tuddee ko programme de lutte contre programme décennal de lutte contre les inondations courant moom ñu ngi koy fàttaliku biñ koy exécuté rawatina ci phase d'urgence am bi nga xamante ni déroulé nañ ko diggante 2013 ak 2014 tax na ba diwaan yu bëri yi nga xamante ne jamono yooyu donc doon nañu jànkuwanteel ci jafe-jafe tey alhamdulilah boo demee ci diwaan yooyu waxuma inondation amu fa waaye nag euh, véritablement problème yu bëri saafara nañ ko euh, mooy boo jëlee ay diwaan yu mel ni Dalifort ay quartier yu mel ni Ouest Foire nga dem ba ci rn nga xamante ni. ay jamono bu taw bi tawee oto yi doon dugg Dakar donc dañ doon am ay problème ndax tali bi dafa doon dagg. Mhm. Euh, nga dem tamit ci yenn quartier banlieue loolu yëpp tax na ba programme boobu bu ñu ko fa tëralee ah alhamdulilah saafara am na waaye nag tey. Euh, ñëpp war na ja d'accord nañ ne tey mbënd mi ci diwaan yu mel ni euh, euh, Pikine rawatina Kër Massar ak yeneen localité Sénégal ci la ci la gën a accentué mm-hmm. donc loolu war na tax ba tamit programme boobu ñu mun koo accélérer donc mën ko yaatal ci ci ci diwaan yooyu waaye balaa ñu ciy agsi defe naa ni ko président waxee faw tamit taxaw seetlu donc xool fan lañ ci toll xool lañ moo ci des donc ba après xool euh, ay indi ay amélioration loolu tax président mu daal di laaj kër conseil de ministres de septembre pour ñu defaral ko rapport détaillé donc defe naa rapport détaillé bu ñu ko defee ba noppi ba ñu xam fu ñu toll ci mbir mi ak ñaata moo def ci xaalis hmm. ak ñaata moo def ci ci euh, ñaata ak ak euh, travaux ñoo def ci la mën a xool tamit ni ñu koy mën a yaatalee waaye nag xam nañ ne Euh, président euh, yemul ci lool hmm. donc ndax keroog bu mu ñëwee fii ci Kër Massar ah am na lu am solo loo xamante ne Euh, wax na ko ci ay mesures donc déjà euh, c'est wax na jox na ay instructions pour ñu renforcer dispositif de pompage ndax fu mu toll nii kenn xalaatul tabax ay ouvrage structurant ci jam euh, ci ci ci localité yoy li ñu war a def mooy ak fu mu toll nii mooy fexe ba ndox bi mu dem Ah. pour que leneen lu ñu mën a def ñu mën ñu mën ko def te loolu président laaj na ñu yokk euh, moto pompe yi yokk seen capacité yokk seen man mën renforcer dispositif ak également dispositif phytosanitaire yi xam nañ ñi tamit andi na ndimbal bu takku bu am solo bu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo lorule donc loolu tamit muy mesure sociale yoo xamante ni yu am solo te gis nañu semaine dernière kii di ministre du développement communautaire dem na sur place commencé euh, joxe ndimbal boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko yeeyoo donc bu ko weesoo tamit am na mesure yu am solo yoo xam ne wax na ko pour Kër Massar mooy que dañu war a fexe ba euh, dérouler benn programme spécial de lutte contre les inondations au niveau de de de Kër Massar donc mu jagleel presque jagleel ko benn enveloppe bu trente milliards donc loolu nekk na lu am solo ndax nekk na volonté politique boo xam ne te ñu ngi koy weesoo tamit li xam ne moom la ne dañuy fexe ba Kër Massar ñu def ko département defe naa ko defee département loolu dina gën a renforcer euh, investissement yi nga xamante ne euh, moom la euh, local diwaan bi mën a mën a mën a am te mu mu mu mu mérito ko ndax tey Kër Massar nekk na diwaan localité bu rëy boo xamante ne ay nit ñi dañ fi dañ fi yëngu ay ay activités yi am am solo donc mhm. lii daal la laa xam ne donc euh, ci wàllum bënd mi euh, vraiment euh, mesures yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ko ciy jagleel c'est vrai que pour le moment xëy na du feeñ daal di média parce que situation bi métti na ndox bi bëri na gaa mais il faut que ñu xam ne li fi Sénégal jëloon amoon ci ndox rawatina ci taw yi 4 5 6 septembre yi nekk na situation exceptionnelle waa météo sax ñoom dañ koy tuddee situation exceptionnelle soo demee ay localité yu mel ni Sokone yi nga xam ne euh, seen moyenne euh, pluvi euh, pluviométrique annuelle daan loolu sax mat cent cinquante millimètres localité yooyu jël nañu ci benn ci benn fan rek lu tollu deux cent millimètres mhm. xam nga ni donc loolu lu am lu lu am solo lu jéggi dayo la buñ demee si gi li ni mel tamit la ñu nemmeeku muy mbënd mi laal na diwaan boobu nga xam ne am na ay jamono mënoon nañ sax bañ a xalaat li nga xam ne mooy ndox mu taa tey Ziguinchor moo ngi am ay inondation ñoom it ndax mën nañoo jàpp ne Euh, mbir mi dina gën a jéggi dayoo. waaw Ziguinchor comme noo ko waxee nekk na dëkk boo xamante ne euh, ci taw lañ fa lañ lañ ko lañ ko lañ lañ ko ràññee waaye Ziguinchor euh, nu mu taw taw taw taw. daanoon na am ay dispositifs d'évacuation naturelle euh, ndox yi. Hmm. donc looloo doon musal dëkk bi euh, euh, ci li nga xam ne moom mooy phénomène inondation sauf boo jëlee yenn gox gox gox goxaan yi Ziguinchor yi nga xam ne souvent yooyu ñëpp xam nañ ne de par leur structuration donc ak ñàkk assainissement bu doy donc doon nañu jànkonteel ci phénomène boobu waaye ren boo xoolee moyenne pluviométrie yi sax Ziguinchor doon am jéggi na d'habitude moyenne xam ne moom moom la dëkk bi di am parce que Ziguinchor souvent piku euh, euh, maanaam euh, bu tawee ba ba ba ëpp souvent doon nañu am ay mille millimètres waaye ren nawet bi jeexawul sax waaye li ñu nemmeeku ci ci taw mooy que tey presque toll nañ ci ay mille sept cent millimètres ak yooyu donc loolu dafay wane ne véritablement taw yi ren yi macha allah ni ko doon séntoo taw yi ñëw na te te am na doole. Mhm. te loolu tax na tamit ba xëy na réseau d'assainissement Ziguinchor yi mu am surtout sur sur sur dépassement donc euh, ba tax na ba tamit euh, quartier yi bëri ta jànkuwante nañ ci phénomène yooyu waaye euh, boo jëlee Ziguinchor li ñu mën a seetlu mooy que at yi weesu ñeenti at yi weesu ni gouvernement gouvernement bi def na ci ay jéego yu bëri ba nga xamante ne ay koñ yu mel ni Escale ay koñ yu mel ni Goudomp ak ñoom seen yi nga xamante ne bu tawoon nit ñu dañ doon am ay jafe-jafe lu mel ni Escale kenn du fa mën a jot donc artères yu bëri dañ doon inondé donc. def jéego yooyu tax na ba macha allah ñu am ay amélioration léegi nag suñu war a concentré euh, liggéey bi ci ay quartiers yu mel ni euh, Gumel Kajoor ak ak ñoom seen mhm. te loolu euh, ñu ngi rafetlu li nga xamante ne moom la président wax pour que ñu mën a fexe ba véritablement liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel ci cadre plan décennal boobu ñu mën ko ci euh, mën mën mën ko jagleel tamit quartier yi xam nañ ne tamit gouvernement bi def na ay efforts importants pour en place un dispositif d'assainissement mhm. te xam nañ ne tamit ci plan décennal euh, de lutte contre les investissements am na benn enveloppe presque euh, ñaar ñaar ñaari fukki milliards ak benn boo xamante ne jagleel nañ ko région Ziguinchor xëy na li ñu mën a ñaax à ce rek mooy que na liggéey bi gaaw pour que véritablement euh, ouvrage yi nga xam ne moom lañ ci war a def ñu mën ko def pour que population yi mën a des ci diwaan boobu wax ci politique jamono ji euh, locales yi donte amaguñu date officielle waaye xam nañ ne dina serré euh, tey jii ndax am ngeen yaakaar ne mairie bi dina ñëwaat ci loxo APR. waaw en tout cas ñu ngi ciy liggéey parce que jàpp nañ ne président am na bilan bu am solo boo xam ne def na ko ci Casamance na fii ci Ziguinchor tey boo duggee ci dëkk bi xaru kanam dëkk bi euh, changé na lu bëri ci tali ci yoon ak ci désenclavement ak ci wàllu ju jumtuwaay donc ba tax na ñun jàpp nañ ne xëy na li nga xam ne moom moo amoon euh, ci élection présidentielle weesu donc nekk na situation bu exceptionnelle mm. donc boo xamante ne buñ ci liggéeyee rek ci élection yi di ñëw donc euh, dinañu mën a fexe ba Ziguinchor dellusiwaat ci loxo Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. may fàttali ne balaa laata élection présidentielle yi amoon na élection yoo xamante ne organiser organisé woon nañ ko fii te si ko euh, suñu coalition gañoon na donc muy élection référendaire yi donc muy élection législative yi élection présidentielle yi rek lañ gis ne xëy na dañoo laj yoon te loolu. donc euh, jàpp nañ ne euh, le fait que Ziguinchor yi waa Casamance rawatina waa Ziguinchor yi ñu am kenn si seen doom koo xamante ne moom dafa présenté ci élection nationale donc dañoo jàpp ne ni ko yenn région defee maay maanaam Thiès mu euh, voté Idrissa Seck waa Fouta ak waa Fatick ñu voté seen doom ci ñi nga xam ne mooy suñu candidat mooy président Macky Sall donc waa Ziguinchor ñu tam jàpp nañ ne phénomène lien de parenté boobu xëy na moom la ñu jiitaloon waaye su fekkente ne ne euh, réalisation la wala kontaan ci li nga xam ne moom la président def ñëpp seet nañ ne waa Ziguinchor ils sont ils ont été reconnaissants au président de la de la République mm-hmm. léegi nag li ci des mooy fexe ba élection yi di ñëw donc euh, véritablement ñi fexe ba situation boobu ñu daqal ko mooy maanaam fexe ba coalition Benno Bokk Yaakaar mu mën jiital ab candidature boo xamante ne dana waa Ziguinchor nañ ci mën a gis seen bopp ba nga xamante ne dinañu mën a euh, euh, fexe ba coalition bi gagné. Mhm. parce que élection locale dafay élection yoo xamante ne. donc euh, élection gox la gox goxaan la comme ni ñu koy waxee loolu souvent diggante nit ki la ak gox bi nga xam ne foofu la bëgg donc gox boobu la bëgg a donc te loolu dafay jaar ci kóolute bi nga xam ne waa gox boobu dañ ko dinañ ko mën a teg ci ci kooku wala ci li nga xamante ne moom jàpp nañ ne programme la boo xamante ne doy na waa waa waa gox boobu te loolu ñun ñu ngi ci liggéey te yàgg gëm nañ ne euh, liggéey bu ñu yàgg def ci terrain bi at yi yëpp mooy maanaam dem di nemmeeku population yi dem di leen euh, wax li nga xam ne moom la président def dem di taxaw euh, population yi bu ñu amee ay jafe-jafe wala bu ñu nekkee ci ay banneex jàpp nañ ne buñ ci boolee teg programme boo xamante ne programme bu am solo donc jagleel ko seen seen seen soxla ah jàpp nañ ne incha allah situation bi dina mën dina mën changer. Mhm. ba dinañ mën a gagné élection yi. Uh-huh. wax ci relance euh, activité économique yu Ziguinchor wala sax yu Casamance tey jii ana nan la ñëw fas yéene defee euh, li ni mel. waaw relance bi nekk na lu poñ bu am solo ndax xam nga région Ziguinchor rawatina région Kolda ak euh, Sédhiou. donc euh, xeex bi euh, amoon na ay loraange yu bëri yu yoo xam ne jural jural na ko ci ci ci ci région yooyu ci diggante presque fanweer fanweeri at euh, ba tax na li nga xam ne moom la région yooyu waroon andi donc pour mu nekk seen contribution ci développement économique et social bu suñu réew mi donc euh, bu yàgg seetluñu ko si si si ndax retard bi nga xam ne xeex bi euh, créé na ko ci région yooyu wante alhamdulilah rabil alamin ñu ngi sant yàlla gannaaw bi nga xamante ne depuis 2012 ba président Macky Sall ak euh, jote réew mi wérto mu am benn cofel boo xamante ne teg na ko ci am na ko ci ci région bi mu am Euh, politique bu de rupture boo xamante ne euh, andi na ko ci li nga xamante ne noonu lay gérer question wàllum euh, jàmm ji ak wàllum développement économique à Casamance gis nañ ne loolu tax na ba war alhamdulilah donc am na ay jéego yu bëre yoo xamante ne gouvernement bi def na ko tey boo demee depuis deux mille douze dal am na te dal boobu li koy firndeel rek mooy Euh, euh, localité yi nga xamante ne euh, ay daw lakku lañ fa seetloon donc daw lakk yooyu yëpp ñu ngi dellu ci seen seen localité tey boo demee li nga xam ne moom mooy ay braquage yi nga xam ne ñoom moom lañ doon nemmee ko fii ci Casamance mhm. yooyu yëpp daanaka macha allah da dàkk na donc checkpoint yi nga xamante ne sax moom moo doon nekk ci ci tali nga xam ne mais chaque cinquante mètres boo dem nga nga am gis ay bara loolu yëpp amatul donc loolu yëpp nekk na ay signaux yoo xamante ne yu am solo donc moo tax bi ci ah, defee ba ñu am euh, dal boobu donc président Macky Sall teg na benn programme de désenclavement boo xamante ne donc parce que boo xoolee région bi euh, jafe-jafe bu njëkk bu mu njëkk bu mu am mooy enclavement bu bu bu enclavement ndax mm-hmm. Casamance dafa soriyoon mm-hmm. ba nga xamante ni waa Casamance bu ñu doon jugee Casamance di wala yenn régions yi doon yaakaar ne dañuy jugee réewum ba réewum donc euh, mesures yi immédiates yi nga xam ne moom la gouvernement bi waroon def mooy fexe ba loolu dàq mooy maanaam li si euh, désenclavé jaww ji désenclavé suuf si ak désenclavé géej te loolu yëpp defe naa am nay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko tey boo demee Ziguinchor am na ñaari avion yoo xam ne daañu dem matin soir di di di ay nit donc mu am ñaar ba ñetti bato yoo xam ne teg nañ ko pour pour yombala dem bi ak dikk bi ñu wàññi ci lool lool lool lool lool euh, yi donc euh, boo demee tamit gas nañu géej bi dragué ko pour li nga xamante ne moom mooy suqali développement économique li nga xam ne moom moy tourisme yi nga xamante ne tamit beneen Euh, euh, wàll bu am solo la ci mm-hmm. développement économique ci économie Casamance tamit gouvernement indi na ci ay mesures yoo xamante ni vraiment pour suqali euh, tourisme la fexe ba ñu créer créer ay ay emploi donc loolu yëpp nekk na politique de de désenclavement ak politique de de de soutien à la reconstruction des acteurs économiques yoo xam ne nemmeeku nañ ne donc ba tax na loolu ñun jàpp nañ ne tey su loolu de matuwaay yooyu bu ko gouvernement bi jëlee donc la ca des mooy fexe ba léegi ñuy samp ay usines donc usines yi tey moo mën a tax ba produit Casamance yi nga xam ne macha allah bëri nañ ko te bëri na te am na solo donc euh, usines yooyu ñooy mën a tax ba ñu mën a transformer produit yooyu fexe ba euh, euh, waa Casamance gis si seen bopp am ay xëy donc am ci tamit ay ay ay ay richesse donc politique industrialisation boobu gouvernement bi donc. commencé nañ sax ci ci euh, ci ci wàllu woowu ndax xam nañ ne président donc li nga xam ne moom mooy projet agropole li nga xam ne nam mën na ko def ci ci réew mi mm. fii ci diwaanu Casamance la bëgg ci tàmbalee ko te projet bi ñu ngi ciy liggéey léegi léegi defe naa mu yemb ndax ñu ngi ko war a samp ci diwaanu euh, Adéane te projet bi bu taxawee donc li nga xam ne moom mooy mango nga xam ne Casamance presque mooy première région produit jus de mangue mm. li nga xam ne moom mooy anakat nga xam ne pra Casamance mooy produit lu toll quatre vingt pour cent de production nationale yi donc dina nekk ay produits yoo xam ne dootuñ ko jëlee Casamance rek exporté ko donc ñu koy ñu ngi koy toggee feneen duñ ko del euh, indiwaat fii mais fii lañ koy euh, produire te fii lañ koy transformer te loolu defee dina mën a régler problème euh, xëyum ndaw yi donc leneen tamit li nga xamante ne moom lañ ci mën a wax mooy hmm. ñi fexe ba ñi accompagner ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñibbi si seen si seen diwaan mooy ci dëkk dëkk dëkk dëkki Casamance ndax mooy dawlak yi ndaxte ci dëkk yooyu fa la développement bi nekk ndax li nga xam ne moom mooy gàncaxu Casamance li nga xam ne moom mooy opportunité yi ci dëkk yooyu lañ ko la la la la lañ koy nemmeeku te loolu euh, tax na ba ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, dawoon bàyyi localité yi tey seetlu nañ ne ñoo ngi namm donc dellu si waat ci dëkk yooyu donc faw ñu accompagner leen pour que ñoom tamit ñu mën a euh, euh, tàmbali liggéey bi pour le développement économique de la Casamance te loolu ñu ngi ci ñun suñu wàllu bopp am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ci ñu ko ciy def mm. euh, lëkkaloo ci ak projet programme yi nga xam ne président la République jagleel na ko Casamance mooy PUDC mooy PUMA mooy PPDC ak ñoom seen te liggéey boobu donc liñ ciy jublu rek mooy fexe ba boolem localité boo xam ne tey population yi ay daw lakk woon te bëgg bëgg dellu si ñu fexe ba ñu jàppale leen tabaxal leen ay kër fexe ba créer defar leen ay cadre boo xamante daa ñu mën a am ay activités ñuy mën a yëngu pour ñu ñuy tuddee réinsertion économique fexe ba tamit jox leen jumtuwaay yi nga xam ne donc moom mooy tax ba dëkkuwaay bi mu mën a mu mu mën a yem te loolu ñu ñu ñu ñu ngi ciy liggéey. merci beaucoup euh, monsieur Ansou Sané. jërëjëf Elisabeth.